Cheikh Mouhamadou Mahdi Ibrahim Niass di jaar ci buntam pour nuyu ziyaara sëriñ Cheikh Mahi Ibrahim Niass suñu xalifa di ko ñaanal yàlla yàlla bu doon fanam di ko sant nag di ko gërëm ci pas-pasam ak liggéeyam ci pays bi liggéey boo xam ne euh, ñun ñëpp la koy defal ñun taal bi ñu ngi am toujours euh, plaisir ak fierté di ko déglu di gis ay mbir yu am solo yoo xam ne mu koy def nuyu tamit mbooleem njabootu Baay bu teew fii wala bu toog Medina dañu déglu dinañu nuyu tamit euh, ñi nga xam ne ñoo ñu jox occasion ñu ñëw fii mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser activité bi ñu ngi leen di sant di leen féliciter aussi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey fii ndax liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ñun ñëpp la waroon waaye yitte jamono tax ñu ñi nga xam ne moom la waroon ñu bañ ci am pas-pas ba ñoom ñu dégg leen liggéey bi donc lu ñuy liggéey ñu lañ koy liggéey ñu leen ci félicité mais di leen ci remercier aussi ci liggéey bi euh, di nag transmettre nuyoo président de la république ak premier ministre mi nga xam ne xam nañu jotaay bi ndax yaakaar naa ne président de la république euh, projet bi nga xam ne moom la ñuy lancé nii projet la bu mu xam xam na ko bu baax ndax yaakaar naa bëri na ay jotaay yoo xam ne doon na ci waxtaan ak sëriñ bi ba tey yàlla sottil ko donc président mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di jaajëfal te mu ngi ne incha allah dina leen jàppale bu baax ci liggéey bi di liggéey euh, nuyoo sëriñ Mbaye Thiam tamit dinaa ko andiwaale. ndax diggante démb sëriñ bi ak tey woo na ma ñaari yoon démb ci guddi mu woo ma ndax fi waroon teew waaye président de la république moo ko yónni ci euh, yoon bu gàtt ca Mali nga xam ne président bi dafa ñàkk waajuram nation bi war ko jaale ji comme que Mali ak Sénégal bëri nañ ay liggéey ñu bokk ci wàllu ndox mi donc moom mu nekkoon ministre boo xam ne ci wàllu partenariat bu ñu am ak Mali moom naturellement moo fa waroon dem mu xëy dem fa war a ñib waaye tey waaye yónnee na ci délégation bi ma ànd ak attaché de cabinet suñu xarit Ousmane Sylla mu ngi am regret di wax ne waroon na teew te teewul waaye xelam ak xalaatam ak xolam yépp mu ngi fi ndax yaakaar naa moom ci boppam am na thème bu mu doon euh, euh, développé fii ci jotaay bi waaye insisté na lool nag ci euh, kàddu yi nga xam ne war naa ko jottali ma taxawaat ci wax ne moom euh, mu ngi jéggalu ci ñàkk ñëw bi fi ñàkk ñëw euh, su loolu weesoo nag maa ngi gërëm euh, organisateurs yi nga xam ne ñoom ñu ma boole ci bés bi ma am plaisir si ñëw fi teewal fi président de la République teewal fi gouvernement mais aussi teewal sama bopp en tant que taalibe sànq sëriñ bi mu ngi wax présentation yaakaar naa kontaan naa bu baax nag bëgg naa lool. ci ni ma présenté waaye doon naa gën a bëgg nag su ma présenté woon comme doom ak sëtu taalib ak taalibe ci boppam ndax man suma maam bàyyi ngi suma ko tubal newul suma maamaati maam bu yàgg suma maam bi nga xam ne moo jël suma bopp xam ñëpp xam nañ moom cell bi xaw la fa yéex a jógee donc suñu amee teraanga boobu mu jógee ci bàyyi yegg si ba suñu papa ba yegg si donc suñu ñëwee fii dañ koy fësal wane ko ñëpp xam ñun ci njabootu Baay lañu bokk ay taalibe lañu yu dëggu taalibe ñu xam taalibe yu ñu ràññee te am nañu plaisir toujours di ko wax ndax li nga xam ne moom la ñu jaar ak Baay ci suñu maam bi nga xam ne Baay moo ko dugal ci diine ba yegg suñu papa ba yegg suñu ñun xam nañ ko ñu dëkk bi dina xam nañ ko ñu ngi leen ciy gërëmaat encore une fois di leen ci remercier ndax taxawaay bu seriñ di taxaw taalibe ñun dëgg-dëgg ñu koy yëg dëgg-dëgg ñu ngi koy gis moo tax nag euh, dinaa sawar ñëw pour waxtaan ci thème bi nga xam ne euh, moom lañ ma jox pour moo wax ci tuuti waaye yaakaar naa wax ci communication nag ci kanamu Serigne Madi bi nga xam ne ci internet daanaka moom laa njëkk gis muy def ay waxtaan ay publication ci Bañes yaakaar naa soo ñëwee foofu nag war a waxtaan ci communication war nga tey tuuti balaa ngay juum moo tax du mu sëriñ ci kàddu gi sëriñ bi la yaakaar naa li nga ci xam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo seq liggéey bi liñ ci xam yaakaar naa xaaj bi xaw ma ko ci waaye comme que nag dañ ci toxtal jeunesse bi nga xam ne mën nañ ko dénk ci réew mi te partie bu gën a am solo nga xam ne peut moom laay waxee mooy protection sociale de jeunes parce que ci lettre de mission bi nga xam ne moom la ñuy dénk ministère de la jeunesse dañ ciy boole protection sociale de la jeunesse ginnaaw nag euh, buñ ci boolee. Euh, yeneen mbir yi nga xam ne mooy citoyenneté promotion civisme ak yëpp mais wàllu aar jeune bi yaakaar naa loolu daf ci bokk te barki dem rek maa ngi koy wax président daal bi ne ko il ñu xoolaat parce que bu yàgg bu ñuy wax protection sociale des jeunes fi ñu doon gën a xalaat mooy ci wàllu fléau yi fi amoon mooy ay trop ah ak yu mel noonu santé sociale ak yu noonu mais tey daanaka yooyu nekkatul sax ay thèmes yoo xam ne intéressé na trop jeunesse bi mais yu si wàllu protection sociale des jeunes tey mooy fléau yi ñu xam ci internet mooy yenn yi nga xam ne euh, mu ngi fi am di jàddal suñu jeunesse di divertir suñu jeunesse di yóbbu jeunesse ci alam boo xam ne peut-être soxlawuñ ko woon wala bëgguñ ko woon waaye loolu li ma ciy wax mooy solution yi bokk na si li nga xam ne moom la def tey ndax tey su fekkee dañu créer télé wala rajo boo xam ne dañ ko askanee pays bi yaakaar naa pays bi moom xam-xam moom moo ko suuxal si xam-xam la taxaw donc mënul nekk télé buy def leneen wala buy wax leneen lu dul xam-xam su fekkee ne pays bi yar doomu adama jàngal ko loolu moo ko tax a jóg te ba léegi si la nekk yaakaar naa télé boobu mooy télé bi nga xam ne dëgg-dëgg moom la ñu soxla si jamono bi ñu toll nii nit ñaa ngi ibbi ay télé télé culturel nit ñaa ngi ibbi télé musique et cetera mais dëgg-dëgg télé bi soxla si jamono bu ñu nekk nii si tolluwaayu àdduna ak tolluwaayu réew mi fu mu toll nii yaakaar naa télé boo xam ne bànqaasam wala sokkalam mu ngi reposé si diine moom moom lañ soxla dëgg-dëgg. yaakaar naa loolu moo tax comme ni ko sëriñ bi waxee sànq euh, état bi am faculté aujourd'hui à autorisé bu yàgg ba peut-être xawoon nañ ragal wàllu état laïcité ak yu mel noonu moo taxoon ay ñoom Senghor ak yooyu dañ doon hésité tuuti. pour accepter yenn autorisation pour yenn télé wala rajo yoo xam ne dañ ko askanale diine mais tey gis nga état bi daf ci sawar lool soo waxee télé diine si lay gën a sawar si lay gën parce que xam na ne diine mënuñu yóbbu lenn si lu lu baax mënul yóbbu lenn si lu lu am njëriñ donc loolu yaakaar naa état bi gis na ko xam ne ko te tolluwaayu réew mi tamit moo mel moom yaakaar naa ñun dañuy déglu euh, médias yi nga xam ne c'est vrai c'est pas des médias formels mooy ay. Malben ay Alfayda FM Kossy TV et cetera man dama koy suivre mais dëgg-dëgg nekkul ay médias yoo xam ne fléau médias yi ñu toll nii yaakaar naa dañ koy am te ñoom tamit war nañ si jàngat ndax su fekkee ne aujourd'hui ci wàllu média dañuy nekk ci li ñuy woowee la tyrannie des vues wala la dictature des vues maanaam tey man li ma am solo rek mooy YouTube laa am chaîne YouTube li ma intéressé mooy naa am vue lu ma intéressé mooy naa xool Pape Malick ci xew-xew lu mu fa nee na taalibe Baay bi ne waaw ministre la war a waxee loolu dafa mel ni cetera loolu mooy maye nit ñi vue yaakaar naa tey ku xool ay Malben ak ay Kossy li ñuy am ci vue da war a xam ne dëgg-dëgg am na ay sénégalais yoo xam ne li baax moo leen intéressé loolu dèjà jàngat la bu ma mën a joxee bu nekk message pour les jeunes wax leen ne leen nañu moytu bu baax euh, télé ak rajo yi nga xam ne dañ leen di dugal ci ay intoxication ci ay wax yoo xam ne amul bopp amul genn mais wax yoo xam ne aussi. Euh, duñ si jëlee xam-xam donc loolu déjà euh, euh, leçon bu am solo la parce que yaakaar naa présentation bi loolu moo ci gën a am solo mooy message yi ma siy mën a pour mën a xam yan télé yan rajo la war a andi Sénégal mooy commune yu mel nii waaye tamit jeunes yi yan rajo ak yan télé lañu war a suivre la ñu war a xool te yaakaar naa mooy yu mel nii nga xam ne moom moo fi am loolu nekk lu am solo loo xam ne suñu réew mi dañ ko jàngantoon beneen bi aussi toujours ci wàllu média li ma si mën a wax mooy toujours ci tyrannie des vues bi nga xam ne nit ñi ko am tyrannie bi mooy man créé naa télé su ma sa ñoom ñëpp wax ma xam nga Sénégal moom jëyee rek lañ mën a seetaan wala lañ mën a déglu loolu aussi dafay tax nit ñi dañuy dem ba dootuñu euh, ñemeti wax li nga xam ne moom mooy seen xol wala la ñu gëm yaa ngi dégg naa sëriñ bi am na lu mu si wax moo tax jamono yële ñu ne ma waaw xam nga am na yenn wax yoo xam ne soo ko waxee ma suñu sëriñ ba moo joxee la voix moo ne naa wax même suñu ma waxee safaan ba ma ne j'assume parce que gëm dama ko bëgg li ma wax loolu laa xam loolu laa gëm ma ne moo njëkk tax ma ne tamit même ma saagaa suñu wax lu lu que loolu laa gëm yaakaar ne mooy lu baax saagal bon wax ñu la naxari wax ñu la neex waaye ñun dinañ ko wax parce que c'est mu conviction mun na nag boo xam ne rek peut-être keneen mun na jàpp ne baaxul mais suñu conviction la te loolu lañ koy wax la yaakaar naa jeunesse bi loolu la ñu soxla mais aussi média bi loolu la ñu soxla bu ñu topp rek ne lii su ma ko waxee ñëpp kontaan dara gënul ma toog dara neex mu ne waaw naa wax lii parce que su ma ko waxee ñëpp laa ko waxal mais sa conviction da koy wax parce que loolu moo am solo yaakaar naa télé nag ak rajo bi nga xam ne moom la ñu soxla ci suñu réew mooy télé boo xam ne conviction dafay am plaisir di ko partager ngëm-ngëmam da koy partager parce que ngëm-ngëm mooy lu gën a am solo ci nit te yaakaar naa télé bi foofu la ñu jëmee loolu moo nekkoon message bi nga xam ne bëggoon naa ko wax maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp bëggoon naa gën a wax waaye nag comme que waxtu bi daf ñu xat li ci des nag def naa ko addee sëriñ bi te xam naa ne dina ko fulani lu am solo ba moom su jëlee kàddu dina wax bu baax li nga xam ne moom laa bëggoon wax te mënu ma ko wax loolu moom laa bëggoon wax te naa ci wax maa ngi leen di sant maa ngi leen di di wax tamit ne li ngeen sumb foofu laay terminer dama ci am partie dama ci am wàll yaakaar naa taalibe Baye mënul euh, dugg ci mbir moo xam ne Baye moo ko sóob ndax wax nañ ko sànq télé bi bëbëtu Baye gis-gisu Baye la woon donc suñu waxu sëriñ donc dañ ci war a am avec plaisir moo tax lépp lu ma dégg man Baye moo ko waxoon rek man damay sawar di ko def. loolu nag su amee bu soobee yàlla li nga xam ne moom ngeen organisé dinaa ci def une enveloppe de deux mu nekk suma contribution personnelle ci wàll bi nga xam ne moom la ma yàlla suturaale te ma xam ne dëgg-dëgg ci euh, wàllu bàyyi am na lu ci bëri loo xam ne foofu la jógee ñun xam nañu sama papa Diouf mii mu ngi nii toog duma bàyyi ma fenn ñun suñu papa dafa am couleur bu am solo boo xam ne dafa amoon ak bàyyi moo tax temps yii passé dégg naa kenn di ma Euh, euh, euh, ministre Macky Sall yi am na koo xam ne bàyyam master la am na koo xam ne liggéeyam ak liggéey diw ba la ñuy taxal ñoom ñoo yokkoon bàyyi ma ne man suma papa master la boo xam ne kinésithérapeute la jàng daf ci amoon plaisir ndax El Hadj Abdoulaye la doon maase papa daal la doon maase leen maase waat te leen maase waat dina am plaisir ñëw raay sama kanam ne ma balaa maa raxasu dinaa raay a kanam pour nga am barke moo tax ma sant ci am baay moo tax su ma ñëwee fii dinaa ko partagé pour sant la leen bàyyi wax leen ne kontaan naa ci li nga xam ne moo ci des mooy li ñuy def sànq man koy laaj seen ndaw muy créer emploi te loolu leen ma ndax nag dëgg lu ma gën amal plaisir ci li ñu def mooy euh, day créer emploi loolu nag am na instrument yoo xam ne état bi am na ko te ñëpp ci war a bokk donc su ma ñëwee fii foofu du parce que taalibe bi moo tax may wax mais parce que sénégalais promotion de l' su ñu gisee ay initiative yoo xam ne dañuy créer emploi dañ si war a jàpp donc am na lu tudd convention nationale état employé loolu instrument la bu président Macky Sall mettre en place nga xam ne li ko tax a jóg mooy ku jóg di def entrepreneuriat état bi da la war a jàppale pour entrepreneuriat bi taxaw ndax rusul na suba ñu ne ana état fu mu nekk télé bi télé bu am solo la woon te pourtant mbiru emploi mbiru salaire moom moo ko tax a bañ a dem donc instrument boobu soo ko déggee mooy su fekkee da nga créer nga war Euh, employé ay nit wala employé ñaar te amoo doole boo leen employé état bi dafay jël xaaj bi maanaam kenn gi état bi moom ma koy fay loolu mën lañ ko dénk donc su ma ñëwee fii di déglu ñu wax ma instrument bu toll nii damay annoncé tamit que su fekkee ne pare ngeen pour récupérer ay nit soo leen ci amee fukk dinañu signé ak yéen convention ci direction emploi su ko defee ñu mën a jël salaire ñooñu incha allah bu neexee yàlla loolu de lundi wala mardi soo leen ñëwee ma booleel ak directeur emploi ngeen signé convention su ko defee xaaju salaire yi nga xam ne moom ngeen bëgg def ñu mën leen si jàppale parce que loolu tamit si ngeen bokk ndax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ciy bénéficié wu yéen tamit yéen leen ko maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm tamit macha